ay chef de mission ak missionnaire yu ànd ak ñoom euh, ñoom ñu wër Sénégal yépp waxtaan ak euh, tous les responsables politiques pour que vraiment mission bi nga xam ne joxoon nañ ko président de la République wóolu ko pour que ci sens de la justice am de l'équilibre mu mën a tànn euh, li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy représenter suñu coalition ci élection yi nga xam ne ca la ñu jëm ci wàll woowu nag bi ñu ko waxtaanee aussi ñëpp rafetlu tànn woowu waaye xam nañ ne tànn nag toujours ni tubaab naan tout choix et renoncement euh, loolu xam nañ ne am na ñoo xam ne xëy na bëggoon nañu nekk ci liste yi euh, waaye defe naa ne li fi euh, tënku mooy ñëpp vraiment d'accord nañu soutenir sans réserve le choix du président de la République son excellence monsieur Macky Sall. à l'unanimité amut kenn ku manqué ci loolu à l'unanimité de tous les participants à cette réunion ni ñu ko waxee mooy tous les responsables gis ngeen ñu toog ñëpp euh, fii ci table ji muy présidente euh, Aminata Mbengue Ndiaye bu au conseil des collectivités territoriales euh, muy le président du conseil économique social et environnemental monsieur Idrissa sec ak sànq bi ngeen fekkee juste ñu pare muy suñu mag vraiment monsieur le président de l'Assemblée nationale bi nga xam ne ñun ñëpp gërëm nañu ko ci ni mu àndeek président de la République pendant tout ce temps la ànd ak moom ci loyauté sans réserve ak une efficacité redoutable dans la manière dont il a conduit les travaux de l'Assemblée nationale loolu it euh, defe naa ne ñun waa Benno Bokk Yaakaar yépp ànd nañu aussi félicité ko euh, te defe naa ne ci turu président de la république waaye ci suñu turu bopp mu doon vraiment suñu mag joo xam ne ji euh, ak expérience am ak xam-xamam vraiment il a su tenir vraiment cette assemblée nationale euh, qui a été exemplaire euh, dans l'accompagnement de notre régime li nga xam ne aussi jàpp nañu ko mooy dinañ dellu aussi ci suñu base yi ak le mission sans délai ndaxte nag aussi fa ñu jëm euh, li ñu ci bëgg mooy rassembler et mobiliser surtout tout tout tout tout tout nos militants waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy le programme bi nga xam ne moom la président jot a réaliser te ñu wax ko fii mën nañu ko faram-fàccee defe naa ne fi Sénégal yegg ci dix ans yi euh, defe naa ne nous avons fait des bon extraordinaires dans tous les domaines mun nañ koo lim muy le domaine social ak des programmes yoo xam ne kenn gisu ko woon ci Afrique mi nga xam ne lañ ci gën a ràññee muy les bourses familiales les infrastructures mu bëri gox yoo xam ne yi depuis plus de cinquante ans bu tawaan ils étaient isolés du reste du pays muy l'accès à l'eau muy la réduction fantastique de la pénibilité des travaux des femmes muy l'appui aussi au secteur économique à travers les différents fonds yi mettre en œuvre ak li nga xam ne aussi moom la bëgg a def ci le programme d'action prioritaire accéléré ñu tuddee ko PAP 2A loolu yépp dinañ ci ànd waxtaan ci ak les sénégalais euh, bu ko defee ni ñu ci amee yaakaar comme un seul homme, je voudrais même dire comme une seule femme, nous irons à la rencontre des Sénégalais euh, pour que ñu jox ko une grande majorité à l'Assemblée nationale. Très Monsieur le Président wax nga ko sànq waxtaane nañ ko aussi li ñu bëgg mooy que la démocratie sénégalaise continue à briller ndax nag aussi amuñu benn complexe ci la solidité de notre démocratie démocratie exemplaire la en Afrique fii dañu fi organiser ay élections plusieurs fois dans d'excellentes conditions donc ñun nous, nous ne aucune raison pour lesquelles cette tradition ne va pas perdurer bu fekkoon ne ci ay jamono ku ñëw rek ne dama soxla nguur gi bu ñu ma ko joxul ma taal ko kon defe naa ne président Abdoulaye Wade du fi fekk Sénégal kon defe naa ne président Macky Sall du fi fekk Sénégal il ya toujours eu des oppositions dans ce pays et il y a toujours eu depuis très longtemps des élections transparentes bu ko defee sénégalais yi doon ay nit ñu am xel ñoo xam ne ràññee nañu muy mag ñi muy ndaw ñi aussi ñu jóg le jour de l'élection woteel ki nga xam ne mooy ki leen doy la démocratie c'est ça la démocratie c'est pas comme disent les anglais my way or no way mooy sama yoon rek lañ may nangul bu yoon woowu mënul nekk nag ma tas réew mi loolu mënta nekk ak loog da ni ko président waxee am nañu vraiment apaisement la ñu war a jëm wax na ko sànq ñu waxtaan ak tout le moom ñëpp xel yëpp dal ouverture ouverture nag ma nga tàmbalee ci nga nangu li nga xam ne mooy décision de justice conseil constitutionnel jël na décision yoo xam ne ñun neexuñu jël na décision yu neexul ci ñeneen waaye loolu dafa passé loolu ma nga ci suñu ginnaaw comme républicain dañu koy accepter ñun suñu listu suppléant ay suñu ay responsable yu mag a ci nekk ñoom it vraiment ñu masawu leen ndax bëggoon nañ jogante bëggoon nañu bokk bëggoon nañu wane seen bopp mais yàlla dogalu ko ñu nangu li nga xam ne nag mooy décision bi et ils sont d'égale dignité ay tous ceux qui n'ont pas été acceptés à con à compétir loolu it aussi dañ ko war a xam ay sénégalais lañu waaye loolu yëpp dafa jàll ndax bu conseil constitutionnel waxee dañuy jàpp ne il a dit droit bu ko defee ñun ñépp ñu dal di tënk foofu loolu mooy li nga xam ne moom la ñu waxtaane tey waaye suñu mbiru bopp sax la ñu gën a waxtaane évidemment la paix c'est important waaye nag nous avons aussi des militants engagés engagement nag mooy aussi engagement loo bëgg bëgg jàmm nag aussi voilà na ñëpp ànd bëgg jàmm foofu lañ ca mën a yem jàmm ji nag mooy li ñu jig ñu ngi ci woo ku nekk waaye nag aussi euh, voilà il ne euh, faudra pas que les gens pensent confondent que la volonté de préserver la paix voilà ce serait différent d'une volonté de fermeté ça également il faut qu'on soit très clair là-dessus et nous prenons aussi l'opinion à témoin ndax fi suñu réew toll ñuy nekk dans une construction ñu gis li nga xam ne jot naa am ñu nekk ci jamono àddina bu jafe président bu yàggul la dem Ukraine di fa négocier au nom de l'Union africaine pour que ñu mën a am accès à des produits parce que nag foofu la ñu toll Russie la demoon demagul Ukraine mu ngi prévoir dem ca Russie la demoon waxtaan vraiment au nom de l'Afrique pas seulement au nom du Sénégal parce que le président de l'Union africaine loolu yëpp pour gis aussi nu ñu mën a contenir l'inflation gis nañ ne njëg yi aussi gouvernement bi def na ci alal wu baree baree baree bare waaye da ngay toll moment boo xam ne loolu it day dem ba xaw a mën a dépasser euh, les possibilités de budgétaires yi nga xam ne am nañu ko donc boo nekkee ci contexte boobu li nu soxla mooy stabilité ak jàmm bu ko defee nit ñi mën a voilà seet les bonnes solutions pour que l'avancement du pays continue à se faire élection bu jotee à date échue ñu def ko ni ñu ko daan defee ñi war a jongante jongante ñi war a gagner gagner mais dans tout ça aussi l'ordre public la sécurité des personnes et des biens doit être assurée loolu noonu lañ ko mën a waxee euh, maanaam defe naa ne tënk nañu euh, li nga xam ne moom la ñu waxtaane ginnaaw nag aussi bi ñu ooyee noo jeunes et nos femmes à se mobiliser se mobiliser dans les quartier surtout parce que foofu lay xewee parce que mobiliser au niveau des départements, à terre, voilà notre, nos petites euh, voilà, difficultés inhérentes à la politique. Parce que politique a demee noonu bu ko defee muy jeunes yi ñuy femmes yi vraiment de l'élan public peut présenter aux Sénégalais parce que moom la bëgg utal ma liggéey bi nga xam ne mu ngi ci mu ne ko def dans de bonnes conditions. wala ce que l'on vous dire. am nañu aussi. Euh, maanaam voilà ñu ngi euh, def nañu aussi benn motion pour que l'ensemble de la coalition kenn desul li ñu ko waxee sànq vraiment exprimer son soutien sans réserve au président de la République wax ko ne ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi ci kanamam ñu ngi ci gaucham ak ci droitam pour ànd ak moom d'abord pour jox ko une grande majorité à l'Assemblée nationale mais également accompagner ko dans son œuvre de construction du Sénégal euh, ñu ngi koy finaliser euh, dinañ ko yónnee ci seeni rédaction